ci kaw liggéey bi jëm ci tabax yoon yi bus rapide transit BRT di jaar BRT di projet bi nu dénk ministère bi yore wàllu dem ak dikk bi mu jaarale ko ci banqaasam yi di Sétude ak Ageroute ñu ngi leen di yëgal mbokk yi ne boobeeb liggéey nag du ñàkk ay xat-xat yu muy àndal ci wàllu dem ak dikk bi waaye jël nañu ay matuwaay muy ay signal ki tegtal ci yooni teggi ya ngeen di jaar ngeen ci am nag ndimbaluk ay bonum de la route ngir yombal seenug dem. ci partenariat Sétude Ageroute

mooy yenn voies yi nga xamante ni créé nañ ko walla gis nañ ko ba aménagé ko defar ko ba nga xamante ni oto yi fi doon jaar ñu fay liggéey duñ fa mën a jaar mais defaral nañ leen ay yoon yoo xamante ni mën nañ fa jaar aménagé nañ ko donc loolu la ñuy wax circulation de déviation boo leen xoolee ci biir yi ngeen ko gis mooy lépp loo xamante ni dafa jaune. léegi rond point case bi ci boppam mën nga ko jàll boo ko jàllee ñëw ba ci pharmacie bi mooy corniche Fadia bi. donc foofu double sens la double sens maanaam mooy mën ngeen dem mën ngeen ñëw boo leen jógee kaas ba ñëw ngeen topp ko topp ko topp ko ñëw bu leen neexee si pharmacie Ndingala am na yeneen ñaari voie de déviation yu fa nekk mën ngeen jël voie bu njëkk bi génn dem bu dee da ngeen di dem géejawaay mën ngeen jël aussi beneen voie bi si topp génn bu fekkee da ngeen di dem également géejawaay donc ñaari voie de déviation ñoo nekk foofu bu la neexee aussi mën nga jóge fii si rond point bi bu fekkee buggoo jël corniche Fadia boo jógee si rond point case mel na kuy dem Cambérène boo ñëwee si intersection bi maanaam fi oto yi di daje bi njëkk bi ngay gis foofu la ñu def voie de déviation mooy route des cars rapides voie boobu boo ko jëlee moom ngay wër wër ñëw ba ci lycée bi si lycée bi fi mu fi mu fi mu jeexee nii foofu ngay génne boo génn mën nga aussi dem bu fekkee da nga bëgg dem géejawaay

fas yi fas yi wala saret yi nu ñu ko mën a tuddee rek donc fépp déviation nekk rek foofu saret wala fas waru fa mën a daw loolu dafay yombal dem bi ak dikk bi jàpp naa ni bu fekkente ni topp ngeen ni ñu ko waxee doo leen am jafe-jafe te doo leen ci gis benn changement te agent de police yi nekk foofu ak bonam yi dinañ leen yombalal dem bi ak dikk bi wasalaam. préfet département Guédiawaye CETUD ak AGEROUTE di leen jéggalu ci yooyu xat-xat liggéey bi àndal BRT taxaw ngir dem ak dikk bu yomb ci lu sax.